avant ñu leen di jox euh, prévision météorologique bi tey euh, mercredi 18 juin ñu jël ki nekk ci ligne bi ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 allo. Fatia. waaw. ça va. bien et toi na nga def. ça va maa ngi rek. xanaa da ngay doog a yeewu. non man yeewu depuis 5 heures et demi. yeewu nga jàppandaa. waaw waaw Fatia 6 heures la commencé boobu ba léegi. c'est vrai. est-ce que est-ce que depuis 6 heures moins 5 yaa ngi may woo da nga bëgg ma ko. non depuis le jour depuis 6 heures ba léegi. 6 heures waaw xaaral ma vérifier xaaral ma xool ndax sa numéro téléphone bi dinaa ko gis 6 heures. 6 mhm. heures moins 5 mooy euh, cinq heures 55. voilà. voilà donc cinq 5 heures 55. mu eh, gisuma sa numéro xanaa sa montre ah, gisuma sa numéro à 6 à 6 heures moins 5. ah moo ngi foofu de. Hmm. bu ko seetee dina gis ne ah. ok. Hmm. D'accord. OK. Alors, je vois pas ton numéro de téléphone à 5h55 hein? Ah, mais mais man loolu rek laa la mën a wax de heure boobu laa woote. Heure boobu nga woote ah? Waaw. Mhm. D'accord, damay tooñ rek, c'est pas grave. Euh noo tudd? Mariem Diop. Mariem Diop foo dëkkee? Rufisque. Rufisque Mariem da ngay liggéey wala liggéeyuloo Mariem? non damay jaay élève la élève euh, terminale. élève terminale. Uh-huh. alors fan ngeen toll ci examen yi. non def nañ anticiper philo ba pare léegi ñoo ngi xaar euh, li si des. ngi xaar bis bu bis bu mag bi. bis bu rafet waaw léegi incha allah. bi kañ la. bac bi le huit. le huit euh, juin le huit juillet ah le huit juillet ah ok kon amaat ngeen daanaka presque un mois non. non presque des jours. waaw ay bachelier doo gis un mois jour ngay gis. xam naa yaa ngi jeex tàkk. billaay ay waay billaay jeex tàkk kay. lépp <laughs> ci rap mais lan mooy lan mooy say pour réviser. non euh, histoire jo bi. lan ngay réviser d'habitude. déjà ban euh, bac ngay def L wala S. non L2. L2 waaw jàpp ko histo-géo moom na na mokk. <laughs> waaw histo-géo bi français bi ñooy samay ak philo bi. ah mais ah mais yàlla yàlla baax na yàlla baax na yàlla. xamuloo xamuloo ban sujet mooy génn. non non non su ma ko xamoon yow tamit du ma toog di réviser ba heure bi non mais parce que parce que élèves yi souvent dañuy am ay doute souvent waaye tam lii génn tam lii génn tam lii génn mais xalaatuloo lan mooy génn ci yenn matières yi ngay yi ngay yi ngay yi ngay eh, examen. non non xam nga boo nekkee classe de terminale da nga war a attendre tout. d'accord euh, ban sujet nga tànn ci anticiper yi passé. non premier sujet bi. c'était quoi. doit-on respecter toujours les doit-on respecter toujours les lois mm-hmm. est-ce que tu vois euh, souvent sujet examen yi dafay méngoo ak actualité dëkk bi Euh, waaw en général sujet yi day méngoo ak actualité ndax lu actualité la. voilà donc de day ci bàyyi xel dégg écoute on te souhaite bonne chance yàlla baax na ñu ngi lay ñaanal. non souhaital ma euh, ñëpp euh, élèves leen bonne chance. bonne chance waaw bonne chance à tous les élèves de léegi dama lay jox dama lay jox njógu saraxu saraxu élève ah njógu jënd bic dem ñu ñaanal la ko. non non ah, parce que parce que man bëgguma eh, saraxu saraxu pour élève bi de man dama bëgg soo ma joxee ci léew bi ma jox ci sama yaay loolu laa bëgg. <laughs> d'accord léegi an sa yaay. sama yaay moo ngi moo ngi fi. ana mu ngi ci kër gi paas ma ko. non non dafa dem marché nag. <laughs> d' accord léegi dama lay jox kon vingt cinq mille ah. dama lay jox vingt cinq mille yoo xamante ni sa yaay bu ko bun nga ci jox sa yaay bu la neexee nga jox lépp sa yaay gis nga xale sax balaa baax jox di jox lépp yaayam. Mm-hmm. waaw lépp laa koy jox bu ko defee mu ñaanal ma ci. voilà joxal lépp sa yaay dégg nga. Ah, incha allah boo amee ñaar da koy jox lépp toog. Mm-hmm. incha allah man sama yaay doo ndax suñu borom daf lay jàppale ñaanam moo gën a foor moom yaay. waaw waaw. Mm-hmm. vingt donc 25000 yeewu leen moo la ko may et puis bonne chance euh, pour examen yi nga jëm dégg nga. merci ne raccroche pas bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro téléphone grâce ak euh, crédit solidaire euh, di nga jot euh, ci say 25 000 yooyu ñu la maya mm. oui. bag BACG commencé nañ en fait ñoom mm-hmm. instant yi ñu ngi si examen yi donc bon courage ak élèves yi def BACG yëpp comme Aïda sec et gros bisous à son frère Modou Ablaye inconditionnel de Yeewu Leen. donc waa G ñoom vendredi la ñuy pare parce que d'habitude ñoom ñoo njëkk a commencé. ñoom ñoo njëkk a commencé avant ñeneen ñi di di def ñoom ñi ngi def. courage bonne chance aux élèves euh, yu def euh, baccalauréat yow ma doon bac ban bac nga am. Euh, L. bac L ok ok d' accord. yow troisième laa bàyyee jàng par Z non L yow L. moi j' arrêté en classe de troisième. <laughs> ingénieuse. ingénieuse voilà. voilà et dugg leen di xaara dugg leen 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 25000 la ñuy commencé jëm 50000 grâce. ak euh, Crédit euh, Solidaire Afrique Crédit Solidaire Afrique nag mi ñu àndal euh, mutuelle la boo xamante ni mën ngeen ko fekk fu ne ay agence am bu ngeen fa demee di ngeen mën a recevoir xaalis bi nga xamee ni ñoo ngi koy maye ci. yeewu leen alors tonton Bac dégg man tonton Bac tonton Bac dama tiddi il est en train de remettre mon bac en question ah, voilà il est en train de se poser des questions même bac la ah, ah, il est de se de oh, se poser am ay doute ban bac la Pape Cheikh Diallo war a am <laughs> alors je te donnerai le réponse la réponse yaa yee sax nag am ay doute <laughs> ah <laughs> bon en alors soxla bu teew ay nelaw faju ko et puis na ñu la réussite ne ko bout de l'effort fajar gi xëy euh, dem daan sa doole non seulement yow da nga yokk ba yëg ko mais sa dëkk itam dafay yokk ba yëg ko looloo tax euh, ñu euh, créer rubrique bi di jóg job chaque matin ci yeewu leen bi. jóg job ana hmm? jingal jàll na ba pare yaa bàyyi ko foofu ak kanamam gu ndaw gi <laughs> kanamam gu mokk. yaa ko gën a mokk. nga mel ni dafa am looy jël. nga mel ne ñebe ni eh, yow bon yow boo doonee ak ñebe yow da nga niroo ak socco. bon yow ngay niroo ak socco bon. nga mel ni socco. est-ce que xam nga doon nañ ma woowee cure-dent tamit. taay ma taay ma gën a sew. spaghetti tout ce qui va avec. vous étiez horribles les enfants méchants. <laughs> donc on y va pour Jok Job euh, ku bëgg sa CV jàll dañuy envoyer mail ci euh, même adresse bi yeewuleen tfm arobase gmail point com. ah kon nga ràggoon ah? dafa ràgg ba léegi. farinu farinu cuisine cuisine cuisine Alfi. moo ko tax a toll sekki nii dama sewoon ba nii laa doon def pour sama yax yi si ginnaaw ba defee dañoo doon wax ñeenti weer nga am. ñaar si kanam Diop <laughs> euh, Diop Amadou bind mail bi ah, li ci wax ni yëpp bokkul ci mail bi voilà li ci mail bi yeewu leen bu leen koy L2EN TFM arobase gmail point com voilà ñu njëkk a jàllale euh, CV bu njëkk bi CV wu euh, Ndeye Bintu Faye la CV wu Ndeye Bintu la ñu njëkk a jàllale léegi nii ci euh, yeewu leen bi comme ça ngeen mën ci bàyyi xel mu ngi ci pegg bi merci euh, tonton Mac euh, dernier diplôme master 2 ingénierie commerciale 2012 expérience professionnelle 2008 2009 publicité Axcom 2009 2012 commercial Autopart Sénégal 2012 2013 nekkoon IT consulting. pouvez euh, contacter Ndeye Bintou Faye par mail à faybintou90collé@yahoo.fr. deuxième CV bi ki ko moom mi ngi tudd El Hadji Momar Gueye Pouy El Hadji Momar Gueye Pouy son dernier diplôme 2013 la ko am BTI en électrotechnique. pour ses expériences professionnelles juillet 2012 séminaire de formation interaudiovisuelle septembre 2012 stage à la Sénélec juin 2013 séminaire de formation internet audiovisuel toujours donc pour le contacter vous pouvez le faire par mail à pouy momar alors pour Momar km arobase yahoo point fr ou par téléphone au 77 732 76 68 ou au 77 551 36 18. ki ci topp mu ngi tudd Ramatoulaye euh, Gueye Ramatoulaye Gueye on lit en même temps son ci écran bi dernier diplôme juillet 2010 diplôme d'état d'infirmière expérience professionnelle janvier 2010 à juillet 2012 poste de santé de Guéoul consultation générale et planification familiale novembre 2012 avril 2013 contrat de prestation programme de surveillance de la fièvre typhoïde en Afrique avec l'Institut international de vaccins au poste de santé Guinaw Rail Sud avril 2013 février février 2014 poste de santé de Guinaw Rail Sud voilà donc jaar na euh, ci ay bërëbu fajukaay yu bëri Si vous avez donc de Ramatoulaye Gueye, elle a de l'expérience, elle a aussi un diplôme d'état d'infirmière. Vous pouvez la contacter par téléphone au 70 874 50 01. moom la Gueye. Mm. bonne chance aux autres. bonne chance aux autres bonne chance à toutes ces personnes qui nous envoient leur CV euh, c'était les ñetti CV du jour yéen ñi seetaan mun ngeen envoyer toujours seen ay CV ku munul defar CV wala amuloo euh, CV aussi même boo amagul expérience mun nga ñu envoyer sa tour sa sant lan nga def comme formation et puis fi nga jot a jaar sa annonce. voilà il est 7h54 on vous souhaite encore une très bonne journée Yeewu qui se poursuit